ausubillahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahim barakat seexul xadim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taxala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloo ak ñun di jiite ci nuyoo bi ak siyaare bi sëriñ Tuubaa Seex Amadul Muntaxaa di ko ñaanal su borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi nga xam ne way juróom yi naaloon nañ ko mu agsi ci moom mu yeggale ko ni mu ko bëgg seen ànd ko ak moom di nuyu bu baax sang bu tedd bii ñu toogal muy sëriñ maam Mor Mbacke moom Cheikh Amadou di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool bàyyi ko kum xelam ba naar yi nga xam ne way juróomu tedd woon naaloon na ko ba mu agsi ci moom mu yeggale ko ni mu ko bëggee te ànd ko ak moom di nuyu mbokk yi jullit yépp nag bàyyiwun kenn xam naa di indi ak leeral rek ci liggéey bu tedd bi nga xam ne Cheikh ma Mourtada na ko defal waajur mu tedd ci bitim réew muy yaatal lislaam ba su borom defal ko ci ndam lu loo xam ne tey jii ku ne xam na ne bitim réew tey jii bu fa lislaam amee ay ndam yi ndam nañ ko sante góor yàlla googu di Cheikh Mamadul Mourtada ku xam na tamit fi bàyyi ko sëriñ Mamour mii nga xam ne moo toog ab jataayam tey it wax dëgg yàlla mate ko sëkk li olof Njaay naan ku yokkul ku nekk danga wàññi waaye ku ne xam na ne fa ko Seex Mamadu Murtala bàyyi woon tey ji yaatal na ko ba mu wër adduna bépp loolu nag lan bëgg indi ay leeral ni ko daa defee ci Europe gépp waaye rawatina gox yi nga xam ne ñun fa leen féete muy fi mel ne ki Espagne ak li ko wër ak fu mel nekki ki Portugal ak fu mel ne ki France fu mel ne ki fu mel ne ki Angleterre ak Suisse ak dëkk yi nga xam ne bu daa jóg daana ci dem yépp te ren di ku ne gis li nga xam ne moo gàllankoor adduna bi te daj ko sëkk muy loo xam ne dafa war adduna muy mbas mi ñu ñaan yàlla jeexal ko tàkk te bu ko jeexee mu defal ñu ci ay xeewal sëriñ bi nag bëgg indi ay leeral ah, ak it fi nga xam ne daana fa dem fépp ngir di mottili jéegoy way juróom yooye loolu nag ci leen bëgg indi ay leeral ngir di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko daa taxawu su ko defee kon ñu xam ne ngan gi nga xam ne heure bii daaw la ko sëriñ bi doon def foofu ci Espagne te ba mu fa jógee tamit mu dugg Portugal te ku ne xam ne ren ji am lu ko gàllankoor kon loolu lañ doon ubbil sëriñ bi su ko defee moom dana ci indiwaat lu gën a leer waaye daal ñoo ngi sant yàlla bu baax ci toog gi ñu toog ak moom tey tamit muy jataay boo xam ne wérantiwul ne jataay bu tedd la kon loolu lañ ci doon indil sëriñ bi su ko defee kon ñu jox sëriñ bi kàddu gi lu ci des rek mu mottali ko ñoo ngi sant mbooloo mépp xam naa nag di profité tamit di santaat bu baax waa fédération bu Espagne di ko seedeel sëriñ Mamour mii ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyal sëriñ Touba ci bitim réew waaye tamit di leen sant ñoom ñi nga xam ne bi mbas mi ñëwee waxtu wu ne ak saa suñee ñu ngi nemmiku di woote moom mi di woon na ma ay yooni yoon di laaj fu feebar bi tollu di ñaan tey wérante wun ne seen ñaan googee neenul ndax li Espagne di rey rëy man day dégguma genn mootu gune mbas mi dal na ko ci loolu nag ñu sante ko yàlla waaye sante ko kii suñ kilifa yi nga xam ne booba léegi ñoo ngi ànd ak ñun ci lépp nag bu leen gisee bu leen gisul ñoo ngi yor seen kurus di ñu ñaanal te ñaan googee gën a xam ne suñu borom nangu na ko kon ñoo ngi koy seedal àdduna bépp waaye di ko seddal sëriñ Maam moor di leen sant bu baax di mu yàggal leen fi wéral leen ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim uh, asalaamaaleykum uh, ginnaaw bu ñu leen nuyoo sëñ Mbacke maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki taalibe yi nga àndal te nga xam ne yéen a jiitu liggéey bi nekk Espagne ni nga ko waxee sànq di nuyu mbooleem ñi kilifa yi nga xam ne tudd nga leen mu nekk Portugal ak France ak Belgique ak Suisse ni nga ko waxee ak Allemagne di la fayu di la de fayalit sëñ Muntaxa Mbàkke ñu nuyoo bi nga ko defal ci turu taalibe yi di ko di ñaan yàlla itam ñaan gi nga xam ne moom ngeen ko yéene yëpp yàlla defal ko ko ni mu ko bëggee euh, di rek yi tamit euh, massawu euh, li nga xam ne moom la àddina bi nekk fi ne di ñaan yàlla yàlla génne ko fi mu tàmbale ko ci sunu réew di ñaan yàlla mbooleem ñi nga xam ne loolu da leen yóbbu yàlla leen yàlla yërëm te e, ñi nga xam ne ñoo tëddit yàlla yëkkati leen di ci e, sax profité tamit di ñu e, jaale sunu mag Cheikh Ahmad Tidiane ñas bi nga xam ne moom itam mooy xalifa daal ñaseen ci yàlla moom itam yërëm ko te mu dem fekki ay waajuram sëñ Moussa Dia di waa di sëñ sëñ Aliou Diagne ñu ngi koy jaale moom itam sëñ Moussa ak mboolem nag ñu nga xam ne sax dañ koy lim mooy ñi fi gaañu te ay kilifa di ay boroomi tur yooyu yëpp yàlla na leen yàlla yàlla yërëm euh, ni nga ko waxee tamit jamono bi moom la ñu daan ñëw foofu euh, eggale fa fa la ñu daan mujjalee Euh, tournée bi ñuy wax te ngeen di ko wooye ngan te mu leen di wax ne la liggéey la ndaxte xëy na yéen dangeen ngeen ci sonn sonn boo xam ne coono li ñuy tudde gan la mooy teraanga junne da ngeen koy def te loolu nit ku nit ñëw ci yow la koy terale gan lañ koy tuddee waaye la ca biir ngeen bokk kook noonu te fekk leen ca ab liggéey la boo xam ne yéen a ci jiitu nun nekk di ko ànd ak yéen kon nag coono boobu yëpp ak la ngeen ci daan def te ba léegi yéen a nga ca yàlla na leen ko yàlla fay te tamit jógu leen ca euh, kon nag ren bu fekkee yàlla def na nañ ko daan defee demeewu ne ndax li xew-xew bi waaye la ko taxoon a jóg moom ma nga fa te yéen a nga ca tamit mooy dundal lislaam ci anam gi nga xam ne mooy sëñ Touba moom la ko doon dundale moom la ko doon yaatale te nga wax ko ci sëñ Mourtala nga xam ne loolu rek moo ko taxoon a jóg loolu itam ngeen an ngeen dikk ngeen dikk defal ko ko ndax tamit moom mën naa teg ci yoon rek waaye dox gi nag yéen yéen a ko def ndax yéen a fa nekk ci anam goo xam ne lislaam eh, yëbuñu ko fa sëñ Tuubaa ko fa ndax tamit léeg-léeg nga gis li ku yëpp lislaam yëpp sëñ te boo sëñ di su bu ko waxee rek lislaam la waaye des na ko yabit ci nit ka nga xam ne daf koy tuddoo ba noppi nekk ci loo xam ne ku ko ca fekk defe ne kii kat ki mu àndal nii la doon doxee yéen yàlla musal leen ci loolu fu leen fekk ngeen di ko ngeen di dox da ngeen di dox woo xam ne kenn du ca yebe sëñ Tuubaa naka loolu tamit lislaam képp ku ci dox woowu doxin ko ci war a dox mooy duñ ko yebe ci yow wante képp kuñ ko yebe ci yow rek xamal ne bokkoo ak kooku wala jëmeewu fa kooku jëm te yéen yàlla musal na leen ci loolu rawatina itam fi ngeen ko defee ci Espagne Espagne dafa am histoire bu bari ci wax naa ko foofu ba tàyyi keroog ba njëkkee ñëw Grenade bi ñu demee ci euh, ci ci ci ci ci alhamra boobu xasr boobu ci laa leen waxee woon ne fii 1892 la fi lañ fi dàqee jullit yi ñu mu metti lool kon may te boobu itam ci la ñu julli ci lañ ma wax ma inauguré jumaa jafa nekkoon ci al al al kii Grenade ñu ngi nuyu kilifa ña fa nekk yëpp tamit loola lañ ci lañ ca nekk lañ ci jëlee dafa bari lool ndax 1892 bi ñu ko bi ñu fa dàqee jullit yi bi ma fa ñëwee bañ demee ci visiter château bi dama leen ne fii loola la loolu foofu la foofu lañ ko fa njëkk a defee euh, ne leen nag kon suñ eggatee ci bis boobu le deux bis boobu la premier nañuy fexe ba di fi jàng alxuraan. ubbi ngeen fi jumaa joo xam ne tamit dafa mën a dafa histoire dafay dafay delloo si boppam dañuy wax ne ak taarix yu dina naf sax dafay répété wu waaye bi mu jaaree ci yéen ñii niti sëñ Touba dafa nekk ak jullit ya nekk ndax li may wax il fokk ñu jullit ya nekk yëpp ñu xam ne ñoo ko bokk wante bu ñu waxee loolu dañ koy waxee noonu ndax jullit yi fu ñu nekk rek xam nañ ne noonu lañ koy doxee xam naa ci dara bu baax ne leen bis boobu bu ñëwatee na ngeen jàng alxuraan ci seen façon wan ko màggal ko te ngeen fexe nag ba sédd ci suturaal ko du nëbbu mais suturaal ko ba bu ñuy defee ne dangeen leen di xas ba ma fa jógee ñoom Cheikh Mbacke ñu nekk ci daayira ba ndekee dem nañ ca ñoom ñu ne leen ex ñu ne leen noonu la ñun sax la deux la ñuy màggal bis bi te boobu ñoom xamuñu ci woon sax loolu ndax le premier bi ñu leen fa dàqee le deux la ñuy def bis bi ñu rafetlu ko lool ñoom muy loo xam ne histoire la ndax dafa bari yoo xam ne il faut ñu di ko téye bu baax ndax àdduna bi day noonu lay demee boo defee dara loo xam ne lislaam nga ko defal te sëñ laa ba muy sanc foofu lool ba muy leen di leen ko digal bu fekkonte ne daf leen ko digal dem ngeen bàyyi ko fa du dox kon tamit dañ fay yàb lislaam rek ndax am na ci garanaad googu am na ñu jóge ci pays islam ñëw fa wax nañ ma ne bis bu set daan nañu dépensé juróom fukki million ci ay ay ay euro ci hôtel yi di ko foyee kon yéen bu ngeen fa amee as njàkk su ndaw dekkal fa lislaam te amul leen sax lu ngeen dépensé wu mais kooku dafa mel ne kon mission la loolu moo tax ma ne kon dafa am lu bari lu mu ëmb euh, loolu nag kon Espagne Europe yëpp la sax moo moo am maanaam moom ndax loolu moo taxoon ñu di ko fa ñu di ñu di ko fa ñu di ko fa ñu di ko fa def loolu taxoon moo tax sëñ Murtala di ko fa di ko fa di ko fa di ko fa santaane kon santaane boobu. toujours li mu doon li ñu doon doxee mooy li sëñ Touba doon doxee rek sëñ Touba lu muy def lu ne yàlla ak yonent bi la yonent bi sallallahu alayhi doon doxee yàllaa ko ko digal kon lépp dafa delluwaat sax ci yàlla amul dara loo xam ne dañ ko doon def pour seen bopp duñ ko defal pour pour nit pour fàggul ko seen njaboot pour fàggul ko nangam pour dara te dañ koy defal pour te loolu li ko wane it gis ngeen ko ndax gis ngeen ne pas-pas bi ngeen ci am ak li ngeen gisee kenn forcé wu leen ci. waaw xëy na bu fekkoonte ne yëf yi ndax xam nañu gis nañu bu baax a baax ay sos ay mbir yoo xam ne nit a ko sos pour boppam wala yëfam mais dafay mujj rek na mu war a demee wala même bu fekkente ne dox na sax nu muy duggee ci xol yi du fa àgg kon lépp dafa wane na rek mbir mi fa mu dellu rek ci ngeen nekk di ko sàmm loolu moo tax ba ñu ngeen ngeen ñu daan ñu sawar ci nag di ñëw bu ñëwee tamit wax naa leen ne liggéey la da ngeen sonn lool ci teraanga yeeg yëpp waaye ñun lañ ca doon gis dëgg dëgg di ko ca seet mooy la ko la ko tax a jóg te ngeen di ko defee nu ngeen koy war a defee ba noppi def ci lu kenn foogul ba noppi boole ci nag ak teraanga ya loolu moo taxoon mën leen kon nag suñ ñëwee nañu dem ci autorité yi kilifa yi nekk ci réew mi moo xam gouverneur ya la moo xam ñu mën di doon alkaadi alkaadi alkaadi ya la xam nu ngeen ko tuddee loolu lépp ñu dafa dem ak ñi fa ña xam mooy kilifa yi wax leen li nu tax a jóg suñ ñëwee ñu ànd ak ñoom ñoom itam ñuy ñëw di fekk si cérémonie ya di fekk si waxtaan ya di fekk si lépp kon liggéey la liggéey la boo xam ne boo amoon benn loo xam ne raar na ci rek ñoo leen koy njëkk ay ndax réewum jàmbur la réewum jàmbur la boo xam ne ña fa nekk sax dëkk fa kenn ku ci nekk fa nga ne boo jàddee yoon sax ñu fekk la fa kon nag waxuma la koo xam ne yow dëkkoo fa te nga yomba xàmme lool kon boo fa nekkee mën a fés di def sa mbir moo xam ne mbirum diine la ak na diine nañ ko fa dàqe woon nga fexe ba indi ko fa di ko fa def ñu respecté la mais kooku comme jikko rek moo ko mën a doxee ak lislaam noonu la mënoon doxee kon ñëw gi lool rek moo ko umboon euh, loolu nag kon bu yàlla defee ren mu demee nii ñaan yàlla yàlla yamale fi lépp nag ci sunu réew ak ci àddina bi yépp euh, lii nag nga xam ne mooy li am ay sunu borom moo ko moo ko moo ko wàcce moom mm, wax naa ba wax naa leen wax naa ne ba àddina sosoo ba léegi par étape waaye mus sa mus dakk day def lu ci ñëw nag ci nit euh, bees wala mu niru lu bees waaye ñi xam histoire xam nañ ne mus sa dakk te lu ci nekk saa bu masar ñëw dañu naan lii nees di def ba mujj yàlla jële ko fa léegi nag xëy na dem nañ ba yàlla maye ci ay xam-xam loo xam ne defe nañ ne lu ñëw am nañ ci saafara waaye defe naa wane na nii la yàlla fa nekk ba tey ma nga fa nekkoon lu mu indi daal su ko neexee mu dañ su ko neexee mu def ci saafara su ko neexee tamit mu indi xam-xam buñ ci defee saafara waaye lii moom ginnaaw loolu amagu ci yàlla na ko ci yàlla indi te dakkal ko te musal nu ci tamit. loolu li ci des mooy ñu nu ñuy koy nañu mooy tamit ña nekk foofa ak ñu nekk fii yëpp teewul. wax nga léegi ne yàlla dimbale noonu ci ba ña fa nekk musal nanu ci waaye loolu yëpp du tee nanuy nanuy moyandiku nanuy fag fagaru ndax loolu yàlla moo ko digle yonent bi sallallahu alayhi wasallam wérlu ko jàngoro fu mu am nañ koy moyandiku yàlla yitam ne leen di wax ne na ngeen wattandiku lépp luy musiba te bu leen ci dugal seen bopp te moo ne moo yor loolu mooy dogal mooy mooy at waaye téewul mu bëgg nit di def dara bam xam ne lii ndax lu ne da ko defal ay sabab dafa def ay sabab ñëpp xam nañ ne dee ñëpp koy def loolu yàlla moo ko moo ko nit a koy dem gis na ko wante teewul dafa wut ay sabab yoo xam ne nit ki bu ko defee dee parce que mooy ruuga day dem nit bu ñu daggee boppam ruu mooy dem te bu ruu bu demee dee dee ñëw na euh, bu ko defee bul ne rek saa boo boo déggee rek képp koo dégg mu naan lii kat bu ku ci yàlla rey da ngay dee ku ci yàlla reyut nangam nangam bul déglu kooku li ci njëkk am solo mooy jàppul ne du du ko xam yàlla bu baax waaw gëm nga sax moo xam wante xam gi moom amul xam ci xam ci dara parce que xam gi mooy gëm gi ndaxte eh, dee yàlla moo ko def nit li ko li leen kitab maanaam am na ab dig moo tax muy wax yamxullaahu maa yashaa wa yuthabbit wa indahu umul kitaab dana wax ne itam wa maa yu'ammaru min mu'ammarin wa laa yunqasu min yi maanaam danaa wàññi ab dund danaa ko yokk kon loolu lépp dafay wone ne am na digg bi moom bu ñëwee ñëw waaye nag moom ci boppam am na loo xam ne moo ko yoral boppam bu ko neexee mu wàññi ko bu ko neexee mu yokk ko sabab bi nga xam ne mooy taxit nit def ko ku ko def da ngay dee même bu fekkee sa digg loolu la mu ko wax ndax ku dagg sa bopp ruux mooy dem. roo moom du toog di ànd ak dag bopp ñu dagg mu tàggale kooku baat waaw ak yeneen yi nga xam ne ci nit yëpp buñ ko dindee ci nit nit ki rooga mooy dem loolu moom roog gi moom day dem bàyyi fa yaram ba bu roo demee nag bàyyi fa yaram loolu la ñuy tuddee dee moo tax ku lay wax rek ne dee fa mu toll bu na ko moyandiku parce que xamul xamul ba noppi tamit te nit yàlla yi ñoo gën a ragal dee ndax ragal gi dee moo tax boo déggee nit ko laan ah diw de nitug yàlla la waaye moom boo tuddee dee kooku bool bu ñu la ko waxee nitug yàlla ko danga koy booy boo nga naw ko parce que dafa xam lan la ndax du jëmmi dégg la ragal mais la ci ginnaaw la ragal waaw ndax alxuraan dafa wax euh, yasta'jilu biha alladhina laa yu'minuuna biha walladhina aamanu mushfiquuna minha wa ya'lamuuna annaha al-haqq dafay wax ne nit ki nga xam ne dafa gëm yàlla dëgg-dëgg li muy li tax muy ragal dem mooy alaaxira waaw waaw ndax kenn du dem àllaaxira tuddeewoo boo ko defee ki nga xam ne xamul wala gëmut wala jàpp na ne mooy ki nga xam ne àdduna rekk ko yitteel loolu la tax muy bëgg dund mooy dafay nekk ngir bànneex wala bu demee ba dund sàppi ko mu defee ne dafa war a daal di dee parce que du fa fekk amul leneen lu am kooku kooku mooy ñi nga xam ne duñu ñu du ñu du ñu noonu la ñuy waxee naa ñaa nangam waaye nitug yàlla dëgg dëgg dëgg du ñeme du ragal dee gi ñu lay gas suul parce que kooku mënta ñàkk yaram bi lañ koy def parce que roogi moom beneen affaire la kon du ragal loolu waaye dana koy ragal nag ngir que bañ na ndax bu ko defee la muy fekki parce que xam na ne ëllëg lu doy waar te yàlla rek ko xam te loola nit gën a gën a jàmm yàlla gën laa ragal ëllëg moo tax ku lay wax rek ne euh, dee moom nangam nangam rek bu moyen di ko xamut ku réer la ñaareel bi tamit xamut gëmut xamul luy luy ëllëg euh, gëmu ca waaye moo tax nit ñu baax ñi moo tax nag fu ngeen nekk di leen ko ragal bu leen ko ragalee duñ ko def ndaxte gis nañ nit ku egg ci kawe lool ku baax def ko am dara ji ci kawe ci yàlla faatu am nit ku am dara ji ci àdduna faatu kon ak ki ci diggante bi kon ñëpp koy def waaye ki nga boo koy ragal nag yow mi nga xam ne da ngay ab jullit da ngay ragal naa ah, dee de dana dana am mais nag boo demee ba egg def ko ba noppi nag te foofa kenn mënut faa dem te deewoo la nga fay fekk te boo fa fekkee doo ci jóg. foofu la affaire bi nekk moo tax di leen ko ragal bu leen ko ragal ragalug dama ko duma ko def ragal leen ko ragal la ci ginnaawam képp ku leen ci wax it xam leen ne te dugal dugale ko foofu rek xam ne xamul bu ko defee nag nañuy foogaru di foogaru lépp lu docteur yi wax nañ koy def li xamal suñu bopp itam nu ko def li nga xam ne te bañ a dugg ci détail waaw nañu jël l'essentiel rek loolu dafa bari lu ne nga ne lii la la ne dugg ci xam loo xam ne xamoo ca bu ko defee bu ñu ko defee boole ko ñaan yàlla ak ñaani nit ñu baax ñi yàlla mën na noonu musal te musal ci àddina bi ndax kat mm, mbir la moo xam ne noonu rek la la kon nag suñu mbokk yi ci biti yéene lu ngeen mën a nekk ak lu leen ci yàlla musal gën leen a ñaan rek gën leen a nekk ci li ngeen war a nekk yàlla na leen ci yàlla musal musal nu ci ñu xam ne kon bis yi tamit bis yi ñu fa daan dem programme bi defaroon ngeen ko ba noppi defoon nañ ko sax ci janvier kon noonu ngeen ko jàppee fenn fu ca nekk bés bu ñu bés ba ngeen xam ne moom la bu fa ñaari nit nekkee sax ca daayira ba jàng ñaan xam leen ne yëf biir yëfi biir la du yëfi biti waaw du yëfi loo xam ne rek nit ñi dajaloo waaye la la ko ëmb loolu moom du fa jóg mukk bu ko defee ngeen nekk ca ñu ngi ciy wax ñëpp nag mooy foofu ngeen wax mooy Portugal ñoom ñoom ñoom ñu fa nekk euh, daayira yi ak yi nekk Allemagne ñoom Sidi Diop ak ñoom nga xam ne ñoom ak ñu fa nekk bëgguma sax tudd ndax boo xasee tudd koo bàyyi ndax ñëpp a cay nekk di ca sonn euh, bu ko defee Bruxelles euh, maanaam Belgique ak lu mel ni Suisse wala lu mel ne France tamit yooyu yëpp ñi nga xam ne dëkk yooyu yëpp dañ fay dañ fa daan kii ñu xam ne yoon bii la daan doon comme yàlla def na ko donc ñu déggaale nekkoon lii tamit waxoon nañ ci waxaat ci waaye ginnaaw dañoo bëgg ñëw fàttali rek ak it ñu nga xam ne noonu lañ ko daan defee loolu moo tax ñun tamit amuñu dara luñ ci luñ ci luñ ci luñ ci kii kon daal ñoo ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal yàlla mm, ña fa nekk yàlla may leen jàmm njaboot gi fi nekkit ndax ñooñu tamit euh, ku ne xam na ne metti na ndax na ñuy tiite foofu de moyen di ko ñoom ci seen bopp lañuy ñuy tiitale seen njaboot ji fii di fi nekk ndax lépp fii la fii am na fi foofa am na fa kon na yow boo nekkee ci dëkk loo xam ne doxandeem nga fa muy benn mettit nga nekk fa di moyen ko loo xam ne xamoo fu mu ne muy beneen métit nga bàyyi fii sa njaboot yoo xam ne itam loola la mi ngi fi tasaare te xamoo sa njaboot fuñ luñ ci toll kooku kon defe naa ne yaa gën a mettale ñëpp mettale nañ waaye yaa gën a mettale donte ñi nga xam ne yéen nga foofu sax ñu ngi leen di xalaat ñu waaye nag ñooñu ña fa nekk ñoo gën a ndax seen njaboot yi nga xam ne mu ngi fi kon nag loolu lépp yàlla xam na ko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na nu yàlla aar ci yàlla na ko yàlla géej jëlee ci àdduna bi ndax àdduna bi mépp léegi benn kër la ak fu nekk rek njaboot gaa ngi fa kon nag yàlla na yàlla musul ci loolu kon daal loolu lañ ci doon wax ñu ngi leen di gërëm di leen sam di ñaan yàlla ñu ñu dem ba lii jëpp jeex ñu di ko ñu di ko delloowaat ci na nga xam ne na lañ ko bëggee te gën gënal sunu borom parce que ak sëñ Touba mi nga xam ne foofu lañ ko jaar di gërëm ñëpp nag tout waxtu yi mooy euh, mboolem këri diine ya fa nekk ñu ngi leen ciy gërëm ndax wax naa ne fépp fuñ fi mas a dem doo xàmmeeb tijaan doo xàmmeeb murit doo xàmmeeb xaadir doo xàmmeeb laayeen foofu nekk wala ñeseen ku ci nekk da ngay wone na yëf yu yaa moom loolu it bu leen ci jóg waaw bu leen ci jóg ngeen continé ci loolu waaw ndax ñii de li ma gis dañoo ñane duñ yàq waaw duñu yàq ndax damay wax ne sëñ tubaa ak yàlla ak yàlla ak maanaam buñ ne sëñ Touba wax nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu buñ ne yonent bi wax nañu yàlla ndax lépp ci yàlla la dellu waaye damay wax ne képp nit nit nitu yàlla ku ko bëgg doo ko wutal am noonu boo bëggee boo bëggee lijjanti sa bopp nag wala ni ko ni ko wutal am bëggu tax ngay dugg ci loo xam ne te ñuy déglu kilifa yi kilifa yi nañ koy déglu wax naa wax naa sëñ bi ne ko lépp lu ñu loolu loo xam ne déggee nañ ko ci yow moom amuñu ci problème waaye nag sàmm sula bali moom duñ ko déglu ci yooyu waaw bu ko defee nag loolu moo tax ñuy ñuy ñuy tax ñoom itam lu ñuy wax danañ ko xam danañ xam duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu duñu kii moo tax euh, lii ñuy régler nga dégg ko wax lu ne waaye yéen bu leen di dugg sëñ Tuubaa rafetal la leen ko ay bokkam yi mu fi nekkaloon di ay julit kenn ku ne sëdd nga ko cër kenn ku ne lu baax nga daan seq ak moom sunu waajur yeeg sunu mag ñi tamit loolu képp lañ seq ak ñi ci des keneen ku ca dugal leneen nag yéen ngeen maandu ca te bàyyi koog ñoom ak bàyyi koog yàlla mi nga xam ne mooy boroom lépp kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu